mbokk alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi sant suñu boroom ci dellusiwaat gi nga xam ne dellusi nañ ko ci suñu téere bi di risaala bu ibnu abi zayd alqayrawaani ñoo jëloon ci ay bind ba yegsi woon ca ñaar fukkeelu bunt bi ak juróom-ñeent naam ña ñaar fukkeelu bunt bi ak juróom-ñeent ci li nga xam ne dafa aju ci la ñu war a rey ca aj ga ak yu demee noonu bunt boobu it la ci ëppoon jël nañ ko ba bu dee yow mi nga xam ne da nga yor samaru daani bi da ngay xool page trois cent quatre-vingt-dix-sept page trois cent quatre-vingt-dix-sept boo xoolee ca ligne bu mujj ba rek da nga fekk mu naan wala yaakulu min fidyatil aza su dee ni ñu yor mool français bi am na ca boo xam ne ca page 61 ba lay doon am na ci boo xam ne yëpp ma nga page 154 bu dee ne da nga yor mool français bi benn bi xaw a rose bi mi ngi ci 61 beneen baa ngi ci 154 mi ngi noonu xam naa yow mi topp téere bi it da ngay dimbali ko fu ñu yem rek nga jëm ko noté baare ko kon bu dee ne bokk nañ ko gis bu ñu jëlee suñu bind bu jëkk day wax ni wala yaakulu min fidiyatil aza du lekk ca lam jotoo ca lor ga ka daloon ba mu war a rey wa jazaa'i sayd du lekkit ca la nga xamee ni nii da koo faye am rëbb mu mu rëbboon wa nazaril masakin ak lam ni soroon ne miskin yi la koy jox wa ma atiba min hëddi yi ak lépp loo xam ni dafa faatu ci hëddi yi yam waroon a yóbbu muy hëddi yu tatawwo yoo xam ne ak coobaroo kese la qabla maxillihi avant muy yegg ca fañ ko war a rey wa yaakulu mimma siwa zalika inchaa day lekk ci leneen lu dul loolu heure bu ko neexee mbokk ala kulli xaal ku ne xam ne ni fiq da cay am ay mbir yoo xam ni dañ koy jàng waaye jëfe ga àdduna da koy rombo ci côté yu bari bokk na ci loolu mooy ñun ñi sori makka nga xam ne bu ñuy dem makka ay avion ngay jël wala ay ay bateau lu mel noonu di yóbbaale ak jur makka xalaatoo ko kon yii day valable te ñi nga xam ne xëy na dañoo sës biir makka te ñoo ñit yaakaaruma abadan suñ jamonoy tey ji loolu di ci am waaye daal bu doon jamono ja nga xamee ni kuy dem makka da ngay yóbbaale la ngay yóbbaale ca lay wax ni su doon te ne ne da nga armal ba pare nga xam ne amootoo droit watu heure boo bëggee watu da ngay rey ab gàtt mu ne gàtt boobu nag yow doo ci lekk la nga ni sër jox miskin yi doo ci lekk la nga xam ne hëdiyu la boo xam ne aj gi taxul waaye da nga ko def coobarewu rek loolu it dañ naan doo ci lekk waaye comme ni ma la ko waxee mbir yooyu ñun ñuy jóge Sénégal wala gox yu sori yi daanaka dana jafe ñu jànkoonteeg moom ci suñu wàllu at amma li ci topp mooy bu ñu jàngee mu ne wa zakatu lii di ak sellal te sellal googi mooy lay tax mbir ma dagam ñu mën kaa lekk imma dañ koy rendi wala dañ koy def leneen wa zakatu bu dee ren di ga lislaam nangu qatul xulquum wal awdaaj mooy fokk ñu dagg la nga xam ne mooy put ga nga xam ne nii fala ngelaw di jaar ak yu demee noonu ak la nga xam ne mooy ñaari siddit yu mag ya nga xam ne ñu siq put googe wala yujizu aqalu min zalik du doy nag nga dagg lu yiis loolu wa in rafaa yadahu ba'da qat'i ba'di zalik soo yëkkatee sa loxo gannaaw ba nga daggee lenn ca loolu summa aada yadahu gannaaw ba nga dellu war sa loxo fa ajhaza daa di mottali la nga doon rendi fala tu'kal loolu kenn du ko lekk wa in tamaada bu dee nag daa continuer xatta qata'a ra's ba baa muy dagg bopp ba asaa ñaawal na ak rendi wal tu'kal waaye nag na ko lekk wa man zabaha min al qafa koo xam ne dafa rendee ca gannaaw ga ca ndonga la rendee xarma lam tu'kal kenn du ko lekk mi ngi noonu mbokk bu ñu xoolee day jàngale fii ne rende bi lislaam nangu ci xar la wala nag la lu mën a doon waa ji fokk mu dagg put gi dagg ñaari sijid yu mag ya nga xam ne moo ko siq mu ne bu doon dangaa ñëw rek dagg sujjit gi deret ji génn ba mu dee loolu kenn du ko lekk boo daggoon put gi kese ca daggoo sujjit yooyu kenn du ko lekk fokk nga boole dagg loolu lépp léegi nag mu indi ci ay atte bokk ne atte bi mu ciy wax waa ji day ñëw di rendi xar mi bi mu commencé dagg put gi avant muy dagg sujjid ya mu daal di teggi loxoom wëlbatu ko waat ñëwaat yeggale ko ñoom bu dee nii ci gisunu mazhab malik yi dañ naan loolu kenn du ko lekk mi ngi noonu ñoom dañ naan loolu kenn du ko lekk ci seenu seen seen taral doonte ne nii bu dee jubluwoo ca mettital xarma xanaa paaka ba nga doon rendee moo ñawul wala paaka ba daa wadd wala am na lor gu dal sa kaw gu tax nga tegg sa loxo loolu lépp incha allah jàpp nañ ni boo ko yeggalee du tey loolu ñu mën ko lekk waaye bu dee mazhab malik yi ci wala boog kii ci lim ko bind ci risaala bi ñoom loolu la ñuy wax léegi nag mu des waa ji da doon rendi masalan da nga doon rendi ak ganaar tey bi nga ko tëralee di rendi ba ba far dagg wala ba ngay rendi xarma ñàkk ngaa xam ba dagg bopp ba mu ne loolu lu ñaaw la waaye nag teewul dañ naan rendi googee rendi gu baax la doonte ne waa ji def na loo xam ne nii lu ñaaw la mi ngi noonu ngi mel ne la lam ca mujje mooy waa ji nga xam ne dafay rendi xar mi au lieu mu jaare ko ci put bi mu jaare ca gannaaw daal di dagg bopp ba ba daggaale put ba ak sujud ya pour ñoom nee nañ loolu kenn du ko lekk ñoom noonu lañ ko gisee ci li ko mazhab Malik gisee mooy loolu moom kenn du ko lekk mi ngi noonu amma bu dee dañuy jël beneen bind mu ne wal baqaru tusbaxu nag day dañ koy rendi fa in nuxirat ukilat suñ ko lojee ca mooy jël paaka rek ñëw fi xol bi tollu jam ko deret ji tasaaroo mu ne loolu du tee ñu lekk ko wal ibulu tunxar bu dee giléem nag moom dañ koy loj moom da ngay ñëw bojj paaka ci xol bi fa in zubihat lam tuukal suñ ko tëralee rendi ko kenn du ko lekk waqad uxtilifa fi ukuliha doonte ne nag boroom xam-xam yi wuute nañ ci lekk ga wal ganamu tusbax gàtt yi xar ak bëy dañ koy rendi fa in nuxirat lam tuukal su dee dañ ko lot jam ko kenn du ko lekk waqad uxtilifa aydan fi zalik doonte ne boroom xam-xam yi wuute nañ ci wa zakatu ma fi lbatni la nga xam ne moom mooy sellal ay rendig la nekk ci biiru jurga zakatu ummihi mooy rendi gañ rendi yaayam fa in tamma xalquhu wa nabati sha'ruhu bu dee ne nekk na di mat bindam ga ba karawam ga daal di sax waa isa tamma su dee mat na la nga xam ne mooy bindam ga wa nabata mu daal di sax sha'ruhu li di karawam ga wal muni xaliqa loo xam ne nii dañ koo xot bi xablin ci ak buum wa naxwihi ak lu mel noonu loolu it kenn du ko lekk wal mawquusa loo xam ne dañ koo assommé am na lu dal ca bopp ba bi asa wa shibhiha la doon loolu aw yat la wala lu mel noonu kenn du ko lekk wal mutaraddiya loo xam ne daa jóge ca kaw daanu ci suuf looloo ko rey kenn du ko lekk wa natiixa loo xam ne day xeex ak beneen bàyyi moom mu jam ko béjjën looloo ko rey kenn du ko lekk wa akilatu sab ak loo xam ne ak lekkitu ak njaa àll moo ko rey lekk ko moo ko rey kenn du ko lekk in balaga zalika minha su dee jot na ca moom loo xame ni nii fokk day daal di dee fi haadihi alwujuh ca yooyee nga xam ne ni mooy jubluwaay yooyee mablaxan benn jotuwaay laa taishu ma'ahu boo xam ne kenn du dund ànd ak moom lam tu okal bi zakat loolu kenn du ko lekk ci rendi ga nga koy rendi mbokk kon fii ay atte yu bari la fi dajale atte bu njëkk mu ne nag day dañ koo war a rendi doonte ne ni waa ji bu ñëwoon ci nag bi bojj ko paaka ci xol bi nag bi daal di daanu daal di dee loolu dañ koy lekk doonte ne rendi ga moo gënoon mi ngi noonu mu ne bu dee gileema moom dañ koo war a locc mooy jam ci xol bi amma buñ ko daanelee rendi ko loolu lam njëkk a wax kenn du ko lekk gannaaw bu ne nag dañ caa wuute te it la wér mooy loj bi moo gën waaye buñ ko rendi dañ koy lekk mu ñëw ci xar ak bëy kii am am xaram au lieu mu tëral ko rendi ko mu ñëw ci xol bi jam ko deret ji tuuru mu daanu mu ne loolu kenn du ko lekk waaye nag ixtilaaf am na ca am na boroom xam-xam yoo xam ne nee nañ mënees na ko lekk kon lii mbokk atte yi li nga ciy déggee rek daanaka mooy ñaari mbir yi benn la gën ca la ñuy rey giléem mooy giléem dañ koy jam ci xolam loolu ci lay gën a gaawe deeye mi ngi noonu mooy xool léeg-léeg ci at yéeg yu deme noonu mën nga gis benn waay boo xam ne balaa une heure de temps mu rey la fi léegi téeméeri giléem day ñëw rek jam ci xol bi mi ngi noonu loolu ci lay gën a gaawe deeye que buñ ko rendee doonte ne buñ ko tëralee rendi it def nañ lu ñaaw waaye dañ koy lekk bu dee na nag nag xar bëy yii yépp la gën mooy dañ koy tëral rendi ko waaye ki ñëwoon jël ab paakaam fekk xar mi mu lot ko ku mel noonu dañ naan def na lu ñaaw waaye téewul mbir bi dagan na ci ñu lekk ko donte ne xam ngeen yéen Sénégal miinu leen kuy def loolu nag wala xar naam rawatina ci téere yi nga xam ne dañ koy jàng lu mel ni risaale bi nga xam ne la mu njëkk a wax mooy loolu kenn du ko lekk waaye nag ixtilaaf moo ci am ci borom xam-xam yi gannaaw ba lay indi benn atte atte bi mooy lan mooy xar mi dañ koo rendi fiñ ko rendee doom génn ci biir mi ngi noonu mi ngi cay wax naan su saxee ay karaw ak nangam waaye la nga xam ne rek moom la yonent bi alei salatu wasalaam waxoon mooy zakatul janin zakatu ummi lépp loo xam ne dañ koo ëmb suñ ko rendee su dee génn na daa di bañ koy génnee faatu na mat nag matul rendi gañ rendi yaayam yóbbaale na ko amma nag bu dee nen dafa doon loo xam ne mat la bi ñu rendee yaayam ñu génn ko gis ko muy dund su boobaa moom dañ koy rendi amma bu dee ne bi mu génnee dee na rendi gañ rendi yaayam doy na mënees na koo booleeg yaayam lépp lekk mi ngi noonu mu jeexale loo xam ne ay atte la yu yàlla tudd ci alquran mi ngi noonu mooy xar giléem nag ak lu mën a doon loo xam ne dañ koo assommé loo xam ne dañ koo assommé mooy dóor ko benn poids xeer laam yat laam lu mën a doon loolu moo ko rey loolu moom kenn du ko lekk mi ngi noonu loolu moom dañuy gis ne kenn du ko lekk gannaaw ba mooy dafa jóge ci étage ba daanu looloo ko rey kenn du ko lekk loo xam ne ni dañ koo jam nga xam ne nii loolu da day da cay dee kenn du ko lekk loo xam ne till wala gaynde moo ko fadd loolu it kenn du ko lekk lii bu dee jot na ci moom jot goo xamee ni nii du dund ak loolu lu mel noonu kenn du ko lekk mbokk lii da ngay gis moom la mazhab Malik wax ci ne kenn du ko lekk ca rendi ga ñu wuute fa ak yeneen mazahib yi masalan suñu borom subhanahu wa taala bi mu ñuy wax araamal nañ leen ci yéen lii mooy la nga xam ne nii mooy mutaraddiya mawquza natiha wa ma akala sabu da caa teg illa ma zakaytum lu dul la nga xam ne yéen a ko rendi bu dee mazhab Malik ñoom dañu naan su dee ni moom li nga xam ne ca la gaañoo ca xoj ga ca daanu ga xam nañ ne kii kat moom dee rek moo ci des day dee ñoom pour ñoom dañ naan loolu kenn du ko lekk am maa nag bu doon buñ ko bàyyee mën nañ koo faj mu wér su boobaa dañ naan manees na koo lekk mais yeneen mazahib yi ñoom borom xam-xam yi lu ñu gis mooy yow tànk fekk nga ci ak dund rek mën nga koo lekk mooy daanu na avant ngay ñëw fekk seddagul nga rendi ko deret ji tuuru mënees na ko lekk boom ngaa ko xoj seddagul dañ koo jam seddagul gaynde fàdd na ko mi ngi noonu seddagul su boobaa mën nga ko lekk loolu moom la ñuy dégg ñoom illa ma zakaytum lu dul loo xam ne da ngeen koo rendi avant muy dee amma bu dee lu mel ne mazhab Malik ñoom la ñuy fa ñuy yóbboo illa ma zakaytum mooy dañ naan yii de yàlla araamal na ko loo xam ni dafa assommé wu dafa daanu dañ koo jam loolu araam na lan mooy li dagan illa ma zakaytum mooy la ngeen rendi ñu teqale illa ma zakaytum ak aaya bale mi ngi noonu loolee kon di ay ay déggin waaye nag la nga xam ne mooy jumhurul ulama li ñu wax ci caamin yi dañ ci d'accord ah moo di ne ne sam xaroo sa lu mën a doonoo bu dee def na accident oto bi fiir na ko masalan mën nam sax dagg na tànk ba sànni mais bi nga ñëwee fekk nga mi ngi dund nga gaaw ak sa paaka rendi loolu dagan naa lekk mi ngi noonu loolu moom dagan naa lekk am maa nag bu dee lu mel ne mazhab Malik ñoom dañ naan su doonte ne buñ ko bàyyee lee mu dee kon kenn du ko lekk mi ngi noonu loolu kon mooy bind yi nga xam ne dañ ko jot a jël xëy na bu doonte ne mbokk yi am nañ ci déjà baat yi ñu jot a jàng ca leerul ci ñoom wala laaj bu jëm ci lii ñu jot a jàng avant ñuy continuer loolee incha allah ñu jël ko avant ñuy continuer bala ñu ko fàtte ci lu jëm ci li ñu jot a jàng waaw bismillah noom ah ah boucher lu mu wax boucher la wax de waaw boucher waaw mooy métier boucher ah waaw ala kulli xaal loolu daan ci ñëw ci kanam daan ci ñëw ci kanam ci rendi yi lislaam daganal ñu lekk ko ak rendi yi lislaam daganul ñu lekk ko insha allah ci kanam dana ñëw waaw bismillah naam waaleykum salaam waaw waaw loolu laajoon nañ ko fi ci dar si passé waa ji nga xam ne gaucher la su dee moom gaucher la gën a yeyoo la gën a mëne su boobaa bu rendee càmmooñam loolee dara néew ci ngi mel ne laaj bi ndax jigéen dina rendi ah kay jigéen bu rendee dara néew ci mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam wa ala kulli xaal incha allah moom comme moo moo tege ci sunu bind yi loolu it daan ci ñëw bu sama yàlla ci li nga xam ne ay lekk la yu ñuy sikki sàkk incha allah ala kulli xaal kon ñu ñu continuer ci suñu bind yi mu ne kon wala baas dara nekkul lil muttar ca ka nga xam ne daa loru an yaakula al maytata mu lekk midd wa yashbaa mu daal di cay lekk ba suur wa yatazawwada mu jël ci ab yóbbal bu mu yóbbaloo sax ci yoonam fa in istaghna fa in istaghna anha su demee nag ba soxlaatu ko ngir am na leneen taraxaha mu daal di koy sànni wala ba'sa bi intifaa'i bi jildiha dara nekkul ci ñuy jëfandikoo deru la nga xam ne daa médd isa dubiha bu dee dañ ko wulli xam nga ndax xale yi dañ ko dégg tam déet mooy tànnin bu dee ne dañ ko wulli naam waaw am nañu koy wax ndoxum naam wala yu salla alayhi donte ne ñoom nee nañ kenn du ko kenn du ci julli wala yu baax te kenn du ko jaay wala ba'sa bi salaati ala juludi siba donte ne dara nekkul ci ñuy julli ci kaw deru njaa àll yi faddaate gaynde yaag segg yaag ila axiri iza zukiyat su dee ne dañ koo rendi wa yabi'uha naka noonu itamit mënees na koo doon di ko jaay derba wa yuntafa'u bi suufil mayta daan jëfandikoo lii di leen ba jóge ca la dee wa sha'riha ak karaw ga wa ma yunza'u minha fi xaalil xayaat ak lépp loo xam ne jamono jamono ba muy dund suñ ko dindee du ko lor bu deeyee mënees na koo jël jëfandikoo ko wa ahabu ilayna la gën la ñu gënal ci ñun nag an yuxsala mooy loolu ñu ciy dindi nañ ko raxas wa yuntafa'u bi richiha dees na jëfandikoo ci ay dunqam naam mu ne wala wala wala yuntafa'u kenn du jëfandikoo bi richiha ci ay dunqam wala bi qarniha wala ay béjjénam wa azlafiha ak ay weyam wa anyaabiha ak ay sellam wa kuriha al intifaa'u bi anyaabil fiil sib nañu nag ñuy jëfandikoo ca la nga xam ne mooy sell yay jóge ca ñay ya mooy yooyu nga xam ne mooy ivoire bañ cee jële wa qad uxtilifa fi zalik doonte ne wuute nañ ci loolu mi ngi noonu mbokk kon day wax fii waa ji nga xam ne daa nekk ci lor moom mi ngi tukki dem ba ci dëgg àll xiif dikkal na ko gisul lu dul lu médd wala loo xam ne lu xaraam la mu ne su booba islam may na ko mën na caa lekk ba suur ngi noonu wante ne am na ñuy exagérer nee nañ buy lekk ba suur bu lekkee ba yéeg ne léegi dootul dee rek dafa war a arrêté waaye mën ñu ne mën na caa lekk mën na caa dagg it loo xam ne yaakaar na ne du gis lekk gu dagan ci diggante bi mën na caa dagg lum yóbbaale heure boo demee ba gis lu dagan mu daal di koy sànni xam na daganatul mu koy lekk lu mel nii it la ñuy wax ni yàlla nattoo ñu tëj leen ci ay prison yow boo nekkoon ci prison tubaab lan lañ lay servir mooy maam xuux ak sangara su boobaa da ngay gis ne am nga droit di ci lekk fii yéeg yaa ngi ragal na soo lekkul mën ngaa faatu mu ngi noonu ak loolu lu mu yàgg-yàgg mu ne it bu dee ne dañoo am lu dee tey xar la wala nag bala ñu koo jël suuli ko mën nañ ko fees mën nañ ko fees waaye nag ko ma ndax caamin yi loolu dana baax si ñëwam biit waaw te xam nga fees ko jàkkaarloog yàpp yi moom day xam ne na doy waar waaye islam maye ne nañ ko fees jël der bi jëfandikoo ko mi ngi noonu ci la nga xam ne moo ñuy jëriñ bu dee nag ci li muy jàngale ci risaale bi moom day wax ni xar moo xam ne daa mel dañu fees ko kenn du ci julli waaye loolu yeneen borom xam-xam yi dañ ne déedéet yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba mu gisee gaa yi yóbbu seenum xar di ko sànni dana lu teewoon ngeen jël der bi ngeen jëfandikoo ko kon yonente bi na rek ngeen jëfandikoo ko kon mënees na koo julli mënees na koo jaay doonte ne ñii ñoom dañ naan kenn du ci julli kenn du ko jaay mi ngi noonu su ko defee kon doonte ne loolu du suñu aada fii waaye am xar mu dee wala nag bu dee waras na ko mën a fees mi ngi noonu fees boo xam ne nii yaakaar naa Bilal Thiam yaa ngi fàttaliku seen kana woon tey j'ai gagné un grand bœuf am déet soxna su ñëwoon di la ko nettali benn nag bu ñu fiir fii ci VDN bi rek ci boori virage de Ngor mu dem jëli ay gaay ñu feesal ko ko mi ngi noonu comme dañ ko fa nar a sànni rek moom mu dem lem ci frigo waaye la ci gën a yéeme ma ñu doon feesal am na yóbbu na ay ay ndog yu ñu ca yóbbu ala kulli xaal moom boo santee caam sooy bëgg ba ñu dugg ci loolu waaye daal dagan na dagan na dagan na nga fekk nag bu dee nga ñëw fees ko jël der bi xar mu dee nga fees ko jël der bi dagan na ca lay waxit ci ne li dee ba pare bu la neexoon ñëw xoos leen bi jël leen bi nga xoos ko wala karaw gi ci lépp loo xam ne bi muy dund soo ko jëlee doo ko lor man nga koo jëfandikoo looloo tax mu ne doo jëfandikoo ay dunqam ndax xam ngeen tey ak ginaar su ñëwoon rot ci dunq yépp loolee mën na ko rey kon ñu ne doo jëfandikoo dunq yi la nga xamee ni it mooy ay béjjénam doo ko jël di ko jëfandikoo ay weeyam it doo ko rot ci di ko jëfandikoo ndax yooyu yépp dañoo jàpp ne bu doon dunda boo ko dindee mën na ko lor mu indi nag ixtilaaf bi am ci li korne kii we bëñ yi ñuy génne ci ñay yi loolu da ngay gis ne li ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne dagan na li nga noonu yeneen bi alei sallam amul ne peñe boo xam ne ivoire la donc nag ñay bu deeyee ivoire yooyu ba ñuy ba ñu ñay yooyu ma des na koo jël jaay ko jëfandikoo ko te loolu day dagan ci lislaam li nga noonu suñ jëlee beneen bind mu ne wa ma maatat fiihi faara loo xam ne da caa dee janax min samnin ci loo xam ne graisse la aw zayit wala loo xam ne nii diw la aw asal wala lii di lem zaidin boo xam ne nii dafay doon liquide buy muy liquide rek turixa des na ko sànni walam yu okal kenn du ko lekk wala ba'sa an yustas wala ba'sa an yustasbaha bi zayti dara nekkul nag ñu jëfandikoo leerloo mooy ca làmp ya lii di diw ga nga xam ne janax da caa dee wa shibhihi ak lu mel noonu fi ghayril masajid ci lu bokkul ak la nga xame ni nii moom mooy jàkka ya wala yusta yustahfazu minhu te it na fegu ci mu bañ muy taq ay yéreem ak yu deme noonu wa in kaana jamidan bu dee ne nag fay janax ja dee daa nekkoon lu wow turixat wa ma xawlaha dañ koy sànni ak la ko wëroon wa ukila ma baqiya ñu lekk la nga xam ne moo ca des qaala saxnuun bu dee saxnuun nag ci ulamaawu malikiya yi illa an yatuula maqaamuha lu dul na janax ja yàgg ca lool sax jam ca sax fiihi fa innahu yutrahu kulluhu su boobaa lépp la ñuy sànni kon mbokk kii day ñëw rek ci kaa janax waa ji teg ne fii gresam lemam diwam mu ñëw fekk jamono bi muy nekk liquide janax dee ci biir mu ne lu mel noonu lépp la ñuy sànni kenn du ci jëfandikoo ci dara allahuma lu dul bu doon diw la mënees na koo jëfandikoo ci ay làmp dañuy taal ci kër ya waaye kenn du ko yóbbu di ka niitoo ca jàkka ya mi ngi noonu te it sabe la boo xam ne war ngaa moytu mu doon loo xam ne nii lu lay taq la kenn du ko yóbbu ca jàkka ja amma bu doon da ngaa teg fii sa graisse wala nga teg fii sa lum mën a doon loo xam ne lu wow la ab ceeb la ak lum mën a doon nga ñëw fekk janax ji dee ci kaw ñu ne su boobaa jël janax bi ak la ko wóoroon lépp ngay tibb daal di koy sànni li ci des moom mën nga koo jëfandikoo loolu lay wax ci wàllu googee mi ngi noonu amma bu dee ni bind bi ci topp mu ne wala ba'sa dara nekkul nag bi taami ahlil kitaab ci lekku ahlul kitaab yi yahuud yi nasaraan yi wa zabaihihim ak la nga xam ne dañ koy rendi wa kuriha aklu shuhumul yahud sib nañ nag ñuy lekk graisse yahuud ya minhum ca ñoom min gayri tahrim doonte ne loolu kenn araamulu ko wala yu'kalu ma zakahu al majus kenn du lekk nag loo xam ne ay majus ñoo ko rendi ndax ñoom jàmm ko safara lañu wa ma kaana mimma laysa fihi zaka ak it loo xamee ne nii kenn du ko rendi it min taamihim ca lekku ahlul kitab fa laysa bi xaraam loolu lépp da ngay gis ne xaraamul kon mbokk ñuy dellu si ci laaj bi suñu mbokk ba doon laaj mooy la nga xamee ne nii mooy ahlul kitab muy yahud ak nasaraan bépp ñam bu ñuy lekk ca kenn du ko rendi loolee dagan na yow jullit nga lekk ko ab ceeb laam ay bonbon laam ay lum mën a doon loolu dagan na nga lekk ko bal loolu sax dagan na ñu lekkal ko ñépp yéesee rek ahlul kitaab ba ci bokk yam lépp loo xam ne duñ ko rendi dagan na ci jullit mu lekk ko bu bokkul ci li lislaam xaraamal waa ji nga xam ni dafa demoon togg ak ceebu jënam te moom ate la gëmul dara loolu yow dagal ne jullit nga lekk ko amma nag bu dee lam togg da caa ànd loo xam ne dañ koo war a rendi su boobaa fokk moom mu am téere bu jege kaw asamaan dañ naan waa ji yahud la waa ji chrétien la même bu dee ne ma ngay def ak bokkaale ay sew sewaan yi nga xam ne ba alxuraan di wàcc it ñoom ña nga ca woon maadaama daal ne nañ chrétien la juif la seen ren di dagan nañu lekk ko mi ngi noonu li muy wax fii ci daganul mooy sib nañ ñu lekk Grèce yahud xam ngeen yahud la ëpp ci Grèce yàlla da koo araamal ci ñoom waaye bu ñu rendee loolee araam moon na ci ñoom waaye ñun l'islam daganal nañu ko moo tax mu ne sib nañ ko waaye kenn araamalu ko kon lii muy desit beneen laaj mooy waa ji dafa dem ci restaurant bi comme suñu mbokk yi lu ñu doon laaj dem nga benn dëkk ñëw nga ci restaurant bi ñu servir la ay lekk yu ñu rendi ñaar moo mën a am mooy ndax xam nga condition yañ ko rendee su dee xam nga condition yi ko rendee ci li ëpp tey ci pays européens yi mooy condition yi l'islam d'accord ko seen diine sax d'accord ci li nga noonu bu dee ni da ngay gis yenn yi ci ay usines yoo xam ne mën nañ jël nag bi dañ koy teg foo xam ne day glisser rek bu glisser en une minute dagg nañ ba ba sànni tasaari lépp gauche droite mbokk rey yooyu islam d'accord ko ñoo xam ne dañuy jël ay ganaar génne ci ploy bi du suub ci cin bi wala ñoo xam ne seenu yat lañu yore ñu ci ploy bi tel tel tel tel tel tel tel tel bokk yu mel noonu yëpp dañ koy gis en Europe looloo tax biñ demee ba musulman yi boycotté seen marché yi ca la ñu commencé ñoom ci seen boucherie yëpp ñu wut place yoo xam ne dañu fay rey yu dagan ba nga xam ne kees yi yàpp laam ginaar yëpp dañ ci bind xalaal pour wane jullit ñi ne lii rey nañ ko reyin bu dagan kon ci cas bu njëkk boobu mooy loolu mooy boo xamee ne réew mi kat nii dañuy rey bu ca lekk lu dul loo xam ne wóor na la ne lii xalal la mu des nag loo xam ne ak lënt la mooy yow ñëw nga ci dëkk boo xam ne ahlul kitaab lañu ñoom ñoo nag ci dëkk bi xamoo lu ñuy reyee yow cosaan ba mooy seen lekk dagan na su boobaa yow waxal bismillah nga lekk li ngi mel ne rek yàpp bi nga jënde terrasse wala bi nga jëndee fu mën a doon ca dëkk bi ay jullit fi ëpp islam du la wax nga topp ko topp ba xam nag bii fuñ ko rey dañ naan rek maadaama ay jullit fi ëpp waxal bismillah nga daal di lekk loolu kon la ñuy wax ci wàllu googee su ko defee léegi-léeg ay ndaw di ñu poser question yu demee noonu mooy dafa am borom xam-xam yu leen di wax ne yàlla nee na taamu ahlul kitab xillun lakum mooy lekk ahlul kitab dagan na kon bu ngeen demee France ak Allemagne ak fu ngeen mën a dem lekk bu ngeen fi gis lekk leen déedéet dagan na bi charte mu nekk lënt ci yow amma bu dee leer na la te nëbbuwul ñu ëpp ci ñoom léegi ca ne nañuy reyee islam nanguwu ko tey julit bi bu dee rey na lu islam nanguwul islam ne la bu ko lekk ba pare ab chrétien rey moom islam ne la lekkal déedéet kon fokk reyin bi doon dëppook loo xam ne sharia da koo jàngale loolu kon la ñu mën a déggee ca wàllu googe mbokk mi mi mi ngi noonu ala kulli xaal ci wàllu rende googu ndax tontu woon nañ question yi ci posé woon yëpp mbokk bi lu mu doon posé di am tontu woon nañ ah waaw waaw. waaw
man man maa ko gis maanaam dañ ko rey ba pare xar ñu rey dañ ko rey ci ginnaaw waaw dugal ko ci benn paan waaw maanaam nit ñi jàkkaarloo ñu ñu yenn ko mais ci ci ginnaaw lañ ko dañ ko rey benn paan waaw day dem boobu waaw loolu lañ leen wax sànq bu dee ni ci liñ jàng ci mazhab Malik ñoom dañ ne kii rendi ba muy rendi au lieu mu jaare ko ca kanam mu jaare ko ca gannaaw rendi ko loolee dañ naan nekkul loo xam ne ni lu dagan lu ñuy lekk la loolu nekkul lu dagan lu koy lekk la ndax ñoom lañ koy lañ da tax ñu koy araamal dañ naan def nga lu rey xar mi avant ñu koy rendi rendi sharia ndax boo ko daggee ci gannaaw dagg siddi ji mag yi nekk ca gannaaw donc def nga lu ko rey ca rendéegoo ko looloo tax ñoom ñu naan doo kenn du ko lekk bokkul ak nag ki commencé ci kanam rendi ba dagg boobu yépp sànni kon kooku moom rendi na sharia ëppal ca rek daa daf lu lu ëpp loolu kon moo tax ñoom ci seen mazhab malik yi kay rendi jaara ca gannaaw pour ñoom loolu kenn du ko lekk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah waaw naam loolu sax dañ koo tëb ci li ñu jàng mooy njaa àll yi njaa àll yi nga xam ne kenn du ko lekk moom day wax ne suñ ko rendee mën nañoo jël der ba ñu daal di koy lekk loolu mi ngi noonu doonte ni ne même bu dee rendi wuñ ko dafa dee da ngay gis ne mënees na koo lekk ci waxi lenn ci borom xam-xam ndax xadis boobu ma leen doon wax sànq ayuma ihabin dubira faqad tahura bépp der bu ñu wulli mooy bu ñu tànnee bu boobaa sell na da ngay gis ne borom xam-xam yu bari dañ ne kon der bu mu mën a doon day dugg ci loolu am na ca nag ñoo xam ne dañ ne déedéet der ba mooy loo xam ne nii buñ ko rendee mu dagane lekk su middee nañ jël der ba buñ ko tanee dana baax mais loo xam ne même buñ ko rendi woon daganu la lekk kon bu dee kenn du jëfandikoo der ba loolu kon da ngay gis bu bokk la ci gën a digg doomu la ci gën a digg doomu mooy mboole mi der buñ ko jëlee wulli ko segg la gaynde la lu mu mën a doon mënees na caa julli mënees na koo sol la ca lenn ci borom xam-xam yi génne mooy xaj ak mbaam xoox mi ngi noonu xaj ak mbaam xoox waaye ala kulli xaal loolu mooy la ci gën a digg doomu moo di ne daal lépp bépp der boo xamee ne nii wulli nañ ko dana dagal ñu jullee ko dana dagal ñu sol ko ci mooy jege ci kuur yi ngeen gis ak ay yu demee noonu yépp en général fa muy jógee nekkul ci loo xamee ne nii léeg-léeg day doon lu dagal ne lekk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam ah ah waaw rend bi waaw waaw est-ce que loolu am na ba léegi est-ce que loolu am na waaw ala kulli xaal day bu am na day am na benn mufti bu ci doon ubbee damay wax yàgg na lool war na xanaa da ko manqué fanweeri at bëriwul ci Égypte moom booba dañ daan xëy di rey lu jege ay huit cent nag di ko tasaare ci kii yéeg yooyu pour nag bu nañu téye ko ren di ko day jafe moom bokk na lu mufti bi mu waxoon mooy bu dee na machine mën nañ ko programmer ba bu nag bu ñëwee mu rendi ko ñu actionné wax bismillah loolee dana doon lu dagan loolu bu dee ne machine bi programme nañ ko nga xam ne nag bi bu ñëwee rek da koy rendi mu daal di continuer dem ndax loolu nag am na seeraas mi ngi noonu bu dee ne daal lor ga yégg na ci gaa yi xam ne dana jafe lool ci nag yooyu ñu leen di tëral benn par benn benn par benn ak aajo ba nit ñi aajowoo lor ga yégg na ca loolee moom am na borom xam-xam yu gis loolu waaw xam naa li nga wax wala kulli xaal mooy li mooy li nga wax rek comprendre nañ ko xanaa kay pour ndax mi nga am séerase ba léegi déet mooy problème bi waaye ala kulli xaal li nga xam ne daal mooy cosaan mooy ñu tëral rendi machine kenn du ko jëfandikoo lu dul ci aajo am maana comme l'islam ci bind ya nga xam ne dañ ko war a jël ci kanam dañuy jàngal nit ki islam may na ko fu muy rëbbee ak fu muy defe yenn yi loolu moo tax borom xam-xam yooyu gis ci lor mënees naa def loolu waaye condition ba nag mu doon loo xam ni du doon da koy assommé wala da koy nanga waaye da koy rendi mi ngi noonu wallahu aalam yaakaar naa mënees na jël suñu bind bu mujj bi rek ci wàllu kii kon day wax ne rek wa saydu bu dee ne nag am rëbb am rëbb as wa saydu lillahu rëbb jubluwoo ci lu dul fo makruux loolu de lu ñu sibla wa saydu li gayri lahwi mubaax waaye nag rëbb goo xam ne po yóbbuwu la ca loole moom dagan na wa kullu ma qatalahu kalbuka al muallam lépp loo xam ne nii rey na ko xaj ba nga xam ne da nga koo dressé ay jàngal ko rëbb aw bazak wala la nga xam ne nii mooy sa faucon ko moo nuñ koy waxe ci wolof ala kulli xaal ci genre aigle la rek sorewul ak aigle mais pas aigle yu mag yi waaw mu ngi noonu mu ne lu mel noonu fa jaiz dana dagan akluhu ñu lekk ko ida arsaltahu alayhi su dee yow yaa ko ci yónni wa kazalika man ma anfazatil jawarih maqatilahu ak lépp loo xam ne nii yégga la ne aji fàddkat ja la nga xam ne mooy rey ga nga xam ne rey na ko ko xabla qudratika ala zakatihi avant nga am kattan ci di ko rendi wa ma adraktahu xabla infasiha li maqatilihi loo xam ne nii nag jot nga ko avant muy doon luy matal di jeexal la nga xam ne nii moom lay rey lam yu ukal kenn du ko lekk illa bi zakka lu dul da nga koo rendi naam mbokk kon fii day wax ne ñetti dem di rëbb fekk foo rek moo ko ci yóbbu loolu sib nañ ko ci lislaam amma nag bu dee da nga koy jëriñoo loolu lu dagan la nit ki dem rey bàyyu ma ngir dunde ko loolu dagan la comme na ngay nappe rek benn la ki nga xam ne daa am benn xajam wala benn eeglam wala benn lu mu mën a doon dresse ko ba mu mën a rëbb heure boo gisee lu muy rëbb mu yónni ko ne bismillah su demee daal di koy jàpp daal di koy rey loolee da ngay gis ne dagan na ci mu lekk ko amma bu dee ne dafa ñëw bi mu ñëwee fekk na ne moom kat rey na ko dagan na mu lekk ko mais bu dee ñëw na fekk na gaañ na ko waaye reyagu ko su boobaa fokk moom da koy rendi mu doog a dagan ci mu lekk ko mi nga noonu fokk da koy rendi mu doog a dagan ci mu lekk ko loolu kon lay wax ci wàllu googee nga xam ne mooy aju ci wàllu rëbb bi donte ne bokk na ci rëbb googee itamit la nga xamee ne ni mooy fetal bi mu xewee ca lu demee noonu lay wax nii ci gannaaw kon bu ñu jëlee bind bu mujj bi mu ne wa kullu ma sittahu bi sahmik lépp lu rëbb ci sa flèche aw rumxika wala ci sa xeej fa kulluhu su boobaa mën nga ko lekk fa in adrakta zakatuhu heure boo dabee nga war koo mën a rendi ay déewagul fa zakkihi kon rendi ko wa in faata bi nafsihi bu dee ne nag dafa rëcci ci boppam ba gisoo ko fa kulluhu na nga ko lekk ida qatalahu sahmu ko heure boo ko gisee ci yëg ne fitti ga nga ko fittoon moo ko rey maalam yabit anka fi yëg nag mbir ba fanaanul wa qiila am nañu wax innama zalika fi ma baata anka am nañu ni ma ngay am ca la nga xam ne daa fanaante gisoo ko mimma qatalathu ljawarix ca loo xamee ne nii la ko rey mooy rëbbkat ya ca xaj ya wala ca eggal ya wa amma sëhmu waaye bu dee ne nag sa flèche moom yujadu fi maqatilihi boo fekk ca la nga xam ne nii dañ koo rey fala ba'sa bi aklihi loolu moom dara nekkul ci ñu rey ko wala tu'kalu al-insiya bima yu'kalu bihi sayd amma nag la nga xam ne day dund ak nit ñi ci kër ga kenn du ko lekk bu dee dañ koo rey nañuy reye la nga xam ne mooy rëbb ga mi ngi noonu ma ko kon day wax rek ne nit ki nga xam ne daa am flèche am gis benn picc mu ne bismillah flash ko mu daal di daanu dee mu ne loolu dagan naa lekk gis nga benn kéwél mu nga jël sa xeej bismillah sànni ko mu daal di daw daanu bi muy yegg si fekk dee na mën nga ko lekk am maa nag bu dee bi nga ñëwee fekk deewagul mu ne su boobaa da nga koy rendi ci loolu mel mel noonu lay wax ne même bu doon na nga koo dóor flèche bi mu dem naaw ak flèche bi dem gisoo ko ba ci suba ga nga koy doog a gis mu ne su boobaa ñii ne nañ mën nga ko lekk ñii neñ doo ko lekk ala kulli xaal lu mel noonu lay wax ca loo xam ne xaj bi da koo gaañ mu mu rëcc nga dem ba ci suba ga doo koo gis mu ne lu mel noonu da ngay gis ne am nañu ne mënees na ko lekk wala mënees su ko bañ a lekk beneen cas bi nag mu ne bu dee ne yow lay dund ci kër gi la nga fekkoon tey ji am xar taxaw nga ñëw rek bojj ko xeec mu dee loolu kenn du ko lekk mi ngi noonu loolu la ñuy wax ca lépp loo xam ne day dund ak ñun ca kër ga ca ginaar yaak yu demee noonu amma bu dee lay dund ci àll ba moom boo ko sànnee sa xeej wala sa fit loolee lekk nga day dagal loolu it bu ñu yàlla indilee fetal borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne fetal gi li muy def mooy la xeej ba di def moom la fitt ga di def kon bu dee gis nga loo xam ne nii lu ñuy rëbb la nga wax bismillah dóor ko balu fetal avant ngay ñëw fekk dee na su boobaa it da ngay gis ne mbir ba dana doon loo xam ne luy dagana lekk la ala kulli xaal mbokk julit comme ni ngeen ko xamee masala yi yépp liñ ci yóbbu mooy topp téere bi te it ñàkkul ñoo xam ne dañ ko soxla di ko jëriñoo di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp loo xam ne danañu jëriñ suñu diine yal na yàlla xamal ñu ko ñu jëfe ko mu nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw majuus loolu mooy ñi nga xam ne dañuy jaamu safara ña ca ëppoon ñi ngi nekkoon côté Iran nga xam ne chia gi ñuy wax seen maam ya la ci ëppoon ay majuus lañu loolu moo tax ba doonte ne mës nañu am cosaanu diine waaye yàqoon nañ seen diine ba la ëppoon ci ñoom safara lañ doon jaamu loolu moo tax ñu ne majuus yi moom islam mayewul ñu lekk la nga xam ne mooy seen rendi rawatina bi jamono bi islam di feeñ lañ daan rendil yépp seeni xërëm kese lañ daan rendil mu safaanoo ak yahudi ak nasaraan yi nga xam ne ñu bari ci ñoom daan nañu rendi ci yàlla tax moo tax yàlla yombalal ñuy seen lekk araamal ñu la nga xam ne mooy lekku la nga xam ne mooy majuus amma waa ji nga xam ne dafa yor ab xajam léegi gis lu muy rëbb mu daal di dàq xaj bi ci moom fàtte wax bismillah la chaque ne mooy kii ren bi rek fàtte wax bismillah boo fàtte wax bismillah suñu borom subhanahu wa taala yonent bi alayhi salaam nee na yàlla baal nañu la nga xam ne dañ koo fàtte wala lañ tayul wala loo xam ne dañ ñu caa forcé loolu du tee la nga xam ne da nga koo rëbb dagan a lekk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam bépp rëbb bu nit koy rëbb fekk njëriñ a tax islam nangu na ko na doon da ngay rëbb di lekk wala da ngay rëbb di jaay li lislaam bañ daal mooy ay fo kese yóbbu la nga dugg ci àll bi di rey bàyyi muy fekk fo rek nga ci jëblu soxla woo lekk gi soxla woo jaay gi lu bari ci tubaab yi xam nañ ne seen tourisme lu ci bari affaire rëbb yooyu am foo ma leen ci yóbbu mais pas loo xam ne dañ koy jël di ko jëfandikoo dañuy dem ci àll bi rey ay yu bari buñ paree lu ci bari sax dañ koy may nit ñi loolu lañ ne lañu sit mais daal bu dee da ngay jaay wala ngay lekk loolee moom islam daganal na ko naam naam bismillah naam wa ala kulli xaal mooy liñ doon wax sànq rek abattage industriel dëkk boo dem presque tey jii ci Europe am na fa ay centre islamique yoo xam ne am na lu ñu leen di nangul ak lu ñu leen dul nangul ba nga xamee ne tey yàpp yooyu nga xam ne la ci ëpp ci dëkk yu mag yi lay jógee su dee ni ah dafa xalaal rek kees yi da ngay gis ñu bind ci xalaal allahuma lu dul nag ay truand moom am na fu nekk ndax am na ay ñuy bind xalaal fekk rey ñu xalaal dañoo bëgg a jurit ni jënd ko waaye quand même yow comme amoo kattan contrôlé ko su boobaa nga gëstu ba gis xalaal nga doog koo lekk am naa nag lépp loo xam ne nii nekkul lu xalaal ca ngay gis na reyin ba moom sa xel dalu ca loole yow julit nga bañ koo lekk te it jën moom amul problème yeneen lekk yi amul problème la am problème rek mooy loo xam ne dañ koy rendi loolu la ñuy wax ci wàllu googee wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw expérience bi ñuy def ci bàyyi may su dee na am pojje yóbbuwu leen ca loolee islam du ko mën a bañ mooy du xool ay feebar tel ndax buñ jëlee produit tel dana ko mën a faj loolee bari na ay expérience yu bari yu ñuy def ci loolu bu dee yee ci l'islam nangu bon amaa nag bu dee ne loo xam ne po moo la ci yóbbu wala loo xam ne nii ay mbir la yoo xam ne l'islam nangu ko su baaw l'islam nangu ko waaye daal li ñuy bëgg a wax daal mooy rey dara loo xam ne sa jubluwaay mooy am expérience boo ca xool ci wàllu feebar wala ay greffage wala ay nangam ay nangam loolu moom da ngay gis lislam du ko bañ mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw naam mooy comme li muy wax rek lu bari ci wàllu garab yi ndax suñu borom ni mu bindee yaramu doomu aadama ak ni mu bindee yaramu bàyyi may daanaka différence yi taxu koo bari lool looloo tax ba yu ci bëri expérience yi ba la ñu koo def ci nit ñi dañ koy jëkk a essayer ci bàyyi ma yi ba xam ban effet lay am avant ñu koy def ci nit ñi mi ngi noonu allahu subhanahu wa taala alam waaw naam ala kulli xaal su dee ne waaw kon insha allah xam naa ñu doyloo loolu rek mi ngi noonu mbokk julit wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain